asalaamaaleykum sunu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di dalal ci émission bi diwaan yi ak gox-goxaan yi sunu émission tey bi nag dañ ciy ànd ak waa collectif des organisations de la société civile pour les élections depuis 1999 collectif bi tëraloon na ay programme yu bari jëmale ko ci mission d'observation électorale dans le cadre des élections présidentielles collectif bi joué na ci rôle bu am solo gis nañ ne ne société civile mën na accompagner population yi dans le cadre de la bonne gouvernance finalement ñëpp seetlu nañ ne population bi mobilisé na woon ci mobilisation bu am solo mais aussi élection yi jaar na ci jàmm ak ñu seetaan élément bi société civile léegi lu nu mën a làmb daj ko la doonte nit ñi nañ ko déggee ku ne ak xalaat ba nga ca am mu am wuute ak parti politique yi nga xam ne jot ci nguur moo leen tax a jóg société civile moom taxawaayam di tëddee njaaxaanaay am taxawaay bu am solo ci wàllu démocratie jatu ni soccanta ba lu ñuy jël bàyyi ko ci xel di yee askan wi aar seen àq ak seen sañ ba ñu moom seen bopp ci wàllu wax sa xalaat te dara du leen ci fekk société civile di laaj ay àq ngir saytu doxalinu nguur gi waaye tamit ñu koy bàyyi xel ci bépp dogal lépp ngir njariñu askan wi. le 23 juin euh, bi ñu fi bëggee euh, adopté benn euh, loi constitutionnelle bi nga xam ne dafa nekkoon loi constitutionnelle bi nga xam ne kenn àndu ci loi constitutionnelle buy soxeel démocratie buy gàllankoor démocratie. société civile bi moo jóg génn nit ñi kenn woowu leen du parti yi ñoo leen woon société civile bi nit ku nekk citoyen bu nekk dafa jóg ne lii ànduma ci parce que euh, citoyen bu nekk xamoon na ne bés bu euh, loi boobu bés bu ñu ko euh, tegoon ci bés bu ko tegee woon ci ci table assemblée nationale loi bu ñu naroon a voté la société civile rôle mooy surveiller lii xew rôlam mooy jéem a fexe ba nit ku nekk nekk citoyen dem ba nekk citoyen mën na tànnal boppam mën na am xalaatu boppam ci lépp lu ñuy def te am réew bu ñu demee ba euh, nit ku nekk dem ba nekk citoyen mën nañu wax ne réew boobu démocratie la parce que citoyen boo amee rek participation day am ci wàllu doxalinu woote société civile bi amal ci ak campagne ñaax nit ñi ngir ñu bindu ji ci listu woote yi ak it di saytu doxalinu élection ci ay mission d'observation yu ñuy amal ci réew mi yépp ak réew yi wër Sénégal société civile bi di fexe ba langu politique bi fii ci Sénégal jaar yoon fitna bañ cee am jaarale ko ci fësal ak sart ngir woy politique yi waaye tamit di doxe tànku jàmm diggante ku jë gi ak ñi nekk ci nguur gi ba waxtaan di am saa su ne rôle société civile dans une démocratie boo ko seetee lu lu am solo la parce que ci at yi passé rek la ñu commencé ñoom dugg ci ndox luñu réew mi te buñ ci duggee ba léegi ci fànn wu nekk euh, dugg nañ ci sa loxo seen loxo ba mu sori ci lool asamaak nag ci élection yi ñu jógee yi nga xam ne ñoom yeete nañu bu baax askan wi euh, wan leen euh, euh, maanaam mbiru élection solo bu mu am ci réew parce que citoyen yi ñoom ñooy tànn ñi leen di jiite te réew ñi ko jiite dañuy war a set sell te société civile ci fànn woowu am na ci liggéey bu am solo boo xam ne ñun en tout cas ñun ñi ànd ak ñoom ci mbir moomu gis nañ ko bu baax a baax a baax parce que dañu jàppante ci askanwu jëmle sunu liggéey ci loolu xam ne ñoom sumb nañ ko te ànd nañ ci ak ñoom. collectif des organisations de la société civile pour les élections ñi ngi ko taxawal ci atum 1999 muy kuréel gi ëmb waa société civile bi ngir saytu lépp lu aju ci wàllu élection di tëralin gu yees gu ñu boole seen doole weccente xalaat méngale seeni jëf ba liggéey bi gën a baax ñu mën see lim AGED, ANAFA, ENDA, Graf Sahel, Forum Civil, Ligue Civique, ONDH, ONG 3D, RADO, RADI, Radio Oxygène ak réseau Siggil Jigéen. boo seetloo 2000 andu atum 2000 dafa nekkoon at boo xam ne dafa bari woon fitna bi élection yi di jub euh, parce que dañu jóge woon boobu si ay élection 93 bi mu bari woon fitna ba ñu rey fii euh, euh, kii maître Babacar Seye ak li si topp yëpp. donc 2000 moo doon élection yi nga xamante ne moo toppoon ci élection yooyu euh, donc bi 2000 di jub si aussi ñu sentir fitna bi bëri euh, ba taxoon ne ñu jàppoon ne élection yooyu nekkoon na xam ne bu ñu ci jàppul woon euh, làmbaay mënoon na ñaaw et donc par pratiquement chaque organisation ou société civile dafa jugoon pour jàpp ci mais dañu dem ba benn moment ñu sentir ne ñun ñëpp dañ ci naroon jàpp mais ku nekk dafa naroon jaar sa côté. alors euh, si xalaatu euh, ay sage yu société civile ñu mel ni ñoom Majid Ndiaye ñoom euh, maître Mame Adama Guèye Mouhamadou Mbodj ak yooyu Alioune Tine ñu jàpp ak waa Kongat ñu ni retrouvé wu ñu ne daal waruñu mën a demee nii ku nekk dem sa yoon société civile bi war na mën a booloo parce que bu ñu booloo si la ñuy gën a bari doole. bu ñu booloo si la ñuy gën a mën a laal Sénégal yëpp parce que xëy na kenn su ñun laal woon Sénégal yëpp ñu ne donc nañu def noo xamante ni dañ mën a boole suñuy doole boole suñuy xalaat boole suñuy stratégie. ba ñu ko taxawalee ba léegi collectif des organisations de la société civile pour les élections tàbbal na loxoom ci wote yiñ fi amal teew ci bépp diwaan gox yeeg goxaani fii ci mim réew di Sénégal muy saytu élection présidentielle yu 2000 référendum constitutionnel bu 2001 élection présidentielle yu 2007 ak élection locale yu atum 2009. boo xoolee élection 2000 li yokk mu terminer ni mu terminer ñun joué nañ ci rôle bu bari parce que si élection yooyu li lañ njëkk def dugal suñu loxo ci sensibiliser ñu ni ñu inscrire boo xoolee yokk nañ taux participation bi par rapport ak élection 93 yokk nañ ko lu bëri. parce que dañ daan wax ne ñi lu euh, du bëri mais pour la première fois ñun laal nañ Sénégal yëpp ba fexe. Euh, moo amoon campagne bu mag bu ñu doon def ci rajo yi ci télé yi ci quartier yi ak suñu points focaux yi parce que région boo dem defoon nañ fa benn point focal fexe ba nit ñi inscri inscrire lu bëri ci liste électorale yi nit ñi tamit voté lu bëri. ba pare boo xoolee aussi bulletin nul lu bëriwul woon loolu yëpp loolu lañ jotoon def en mille boole ci woon euh, àndax rado boobu rado rek moo xëy na daan observé àndax rado jàppale ko ci observation. xam-xam gëñu ci jëlee ci fukki at yi wees moo tax collectif des organisations de la société civile pour les élections jël dogal fas yéene saytu élection présidentielle atum 2012 fii ci Sénégal na mu ko amale woon ci 1999 2000 ak 2005 2007 li ko waral tukkee ci càmbar gi ñu càmbar réew mi ba gis ni tolluwaayam ci bépp anam jafe na lool li ko waral di langu politique gu jax lool réew mi nekk ci campagne électorale bu dul jeex beneen cëslaay gi di société civile gi bëgg gën a dooleel démocratie fii ci mim réew am état buy sàmm àq ak yelleef yi sàmmwante ak sañ-sañu nit ñi waaye tamit amal fi élection yu leer te dal ba ko jël di askan wi tàbbal seen loxo ci yorinu li ñépp bokk